xibaar yi ak Mamadou Fall tey ji nag ñu daal di koy euh, jagleel ci wàllum alam gi di euh, journée de l'environnement bi nga xamante ne tey ji lañ koy màggal ci àdduna wërngal këpp yemoo ko juróomi fan ci weerum euh, juin naka noonu itam des rek ànd ak yéen defub càmbar ci nu Sénégal fas yéene màggale bëccëg gunimel fale ci Toubacouta ak ci Foundiougne des ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi ak ki nga xamante moom mooy Gora Niang di directeur centre d'éducation de et de formation environnementale ci ministère de l'environnement Diab moom mooy sax moo fas yéene doon suñu ganu euh, xibaar yi Enda Graf Sahel itam di euh, rek daal di jagleel programme ju mucc ayib jëm nag ci yëngu-yëngu euh, ci dooleel jigéen ñi ci wàllum sécurité alimentaire ak tamit ci wàllum environnement taxawaay ju ñu amee ci mbir bu ni mel des andi ci biir xibaar yi ak kii di soxna Fatou Ndoye mi nga xam ne moom lañ jagleel boobu lépp programme askan wi itam jëm ci seen gis-gis ci wàllum environnement ci ay reportage la fas yéene doon ci seen gëstu ko gaaw gi Galaye Seck moo fare ci wàllum xarale. xibaar yi ak Mamadou Fall. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ni ma leen ko doon junjalee ci bopp gëstu gi tey ñu fas yéene ko jagleel wàllum alam gi di journée bu ñu jagleel wàllum environnement ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp Sénégal itam fas yéene wu des ci ginnaaw ren ji dinañ ko rek daal di màggal fale ci euh, Foundiougne ak tamit ci Toubacouta ci noonu itam euh, bés bi am na njëriñ gi nga xamante ne moo ko tax a jóg loole nag ci di euh, Gora Niang directeur centre d'éducation et de formation ci. wala ça et de la formation environnementale ci ministère de l'environnement et du développement durable moo ñu koy faram-fàcceel. environnement boobu journée bi ñu ngi koy célébrer depuis 1974 donc euh, la journée mondiale de l'environnement est célébrée bis bu le 5 juin jote muy bis boo xam ne nag euh, day wane engagement gouvernement yi engagement citoyen yi engagement entreprise yi. engagement collectivité territoriale engagement bépp xeet boo xam ne daal nekk ci àdduna bi pour daal di wane pas-pasam ak wane taxawaayam ak wane engagement pour aar jaww ji nga xam ne moom ci la nekk. man mën naa jàpp sax ni ci àdduna bi bis bu ne sax mën na ni journée mondiale de l'environnement la parce que jaww ji ci la ñuy dund jaww ji moom moo ñuy jox li nga xam ne moom la ñuy lekk jaww ji moom moo nuy jox air bi nga xam ni moom moo yor bi ñuy noyyi jaww ji moom moo ñuy jox suuf si nga xam ne ci la ñuy dox donc bis bii nga xam célébrer bis bu am importance la donc bis la boo xam ne war na fexewaat ba dëggëraatal pas-pas yi dëggëraatal taxawaay yi am benn prise de conscience boo xam ni car bii nga xam ne ci lan toog nan fexe ba buñ ko dàmm ku nekk daal fa nga nekk nga taxaw ni yow mii yow yaa waroon mën a nekk kuy aar donc jaww ji kuy aar environnement bi kuy aar lépp lu di ndox kuy aar lépp lu di garab kuy aar lépp lu di rab boo xam ne yaa ngi nekk malef ci àdduna bi donc bis boo xam ne daal bis bu am njariñ njariñ mu doonoon Gora Niang di directeur centre d'éducation et de formation environnementale ci ministère de l'environnement et du développement durable mu fas suñu gan ci euh, lii di pacc mujj yi lay xibaar junjoon na ko itam ci bopp xibaar yi Endagraf di euh, rek daal di amal ay yëngu-yëngu yu am solo jëmale ko nag ci dooleel jigéen ñi euh, ci wàllum sécurité alimentaire waaye itam ci wàllum environnement kii di soxna Fatou Ndoye di dikkat ak ñun ci boobu la taxawaay. gën a jëmmalaat gën a dooleel li nu wër écosystème bi thème boobu ñu jël dafa doon thème bu am solo pour man du temu benn bés rek dafa war a doon thème bu nga xam ne bés bu ne nit ñi war nañ ko fàttal ko bu lu nañ ko jëfe aussi jigéen am na solo torop ci liggéey boobu ndax tey bu ñuy wax euh, écosystème bu ñuy wax environnement jigéen ñi bay nañ ci seen waar bu baax a baax a baax Sénégal gis nañu ne jigéen ñi dañu liggéey pour defar environnement bi bu fekkee ne am na ñu yàq vraiment ñoom taxawu nañu nekk ay soldats pour jàppale environnement bi mu ñoom loolu day fàttali aussi que ne même si jigéen ni ñu ko bindee niñ ko mooñaalee xalaatam yépp danga koy fekk muy def lu nga xam ne dafay ñoŋal environnement xam nga jigéen suñu borom dañ ñu dénk surtout cër bu nga xam ne mooy toppatoo njaboot ni ñuy toppatoo njaboot ni ñuy toppatee doom noonu la ñu gisee ne lu si ëpp aussi jigéen day toppatoo alam bi day toppatoo environnement moo gisee dëkk yu bari sax bu ñuy wax waxu reboisement ñoom ñoo say jiitu. mu doon ku mel ni delta du Saloum gis nañu mu doonoon Fatou Ndoye mi nga xamante ne dafa doon rek daal di addu ci uh, ponk bu ñu taamu ci atum ren ji waaye itam uh, ci taxawaay yu soxna yi di taxaw nag jëm ci wàllum environnement boobule ENDA uh, GRAF nag jot na rek daal di am ay mbebet di ay projet ak tamit jot na rek daal di def ci boobule fànn liggéey bu am solo jëm nag ci jàppale jigéen ñi ñu teewlaat ko moom soxna Fatou Ndoye ya mu mel ni delta du Saloum gis nañu ne jigéen ñi ñoo doon soldaar yu jiitu si wàllu xeex nan la ñuy mën a def ba alam bi ñoom boo gisee foofu nag ñu tànn ko dafa nekk zone bu nga xam ne li ñuy wax changement climatique yi maanaam ni climat bi ni mu soppeekoo nii nga gis ne géej gaa ngi gën a avancé te bu avancé day jëm si suuf si suuf si daal di doon suuf suuf am xorom bu ko defee mbay mi lompoñ bu ñu ne géej guy avancé aussi da ngay gis ne ñu si bëri fañ daan dem par exemple di uti ji ay paañax yooyu day gën di sori donc loolu yëpp gis nañu ne conséquence la yu jigéen ñi yoo nga xam ne changement climatique yi am na ko si jigéen ñi waaye ñu gis ne aussi génn nañu ay pexe yu bari pour fexe aussi nan la ñuy mën a jàppe si loolu ba liggéey seen liggéey gën a mën a en tout cas taxaw si biir loolu gis nañu boo demee fu mel ni delta du Saloum loolu ñuy wax mangrove maanaam ay xeetu garab la yu nga xam ne si ndox lay màgge mangrove yooyu foofu la yoxoo si par exemple di juddoo jën yu bari fa la ñuy laxoo pour mën a nen donc mangrove boobu gis nañu ne jigéen ñi am nañu liggéey bu am solo buñ siy def boo demee dans les delta du Saloum boo demee yu mel ni Jonwaar boo demee village yu mel ni Ñoojoor wala ay Ndangaan Sàmb foofu yëpp jigéen ñi dañu taxaw nekk ay soldaar pour mën a vraiment liggéey ba alam boobu daal di doon alam bu ñoom donc loolu am nañ si liggéey bu am solo jigéen ñi ay soldaar lañu. bu weesoo loolu ñuy liggéey di ko sàmm si géej gi amaat na yeneen i écosystème yu nga xam ne dañ koy sauvegarder loolu ñuy tuddee vasière maanaam foofu nga xam ne fa la paañ yi buuj yi par exemple fa ñuy juddoo fa ñuy màgge loolu aussi ñu ngi koy sàmm kooku aussi beneen xeetu écosystème la bu nga xam ne jigéen ñi ñu ngi ci bay seen waar si zone yooyu soo ñëwee aussi si suuf si maanaam si fii nga xam ne fa lañuy bayee jigéen ñi am nañu ay pàkk yu nga xam ne ay forêt yu nga xam ne toujours dañuy fexe garab yi nga xam ne ñu ngi commencé wàññeeku ñu commencé réer ñuy def seen maximum pour di ko mën a sauvegarder. seen liggéey boobu boo gisee tey ñu bari yëngu-yëngu si wàllu mbay mi aussi di def mbayum agro écologie maanaam mbay moo xam ne gàncax gi doo si def tooke loolu aussi beneen fànn la ba nga xam ne. dañuy tax ñu gën a préserver écosystème bi maanaam gën a préserver suuf yi gis nañu daal ne sa dëgg-dëgg jigéen ñi am nañu liggéey bu am solo bu ñuy def ci àddina bi il faut que ñu xool nuñ leen di gën a doolelee nuñ leen di gën a jàppale parce que village yoo dem tey am nañu ay comité de gestion yu nga xam ne surtout dañu taxaw pour gën a mën a dooleel environnement bi mais aussi gën a mën a saytu lépp li nga xam ne si dëkk ba lay jóge maanaam ressources yi mais si biir comité de gestion ressources yooyu gis nañu ne wàllu jigéen ñi seen place néew na fa lool. na ngi déglu seen rajo Afia FM ci 93.0. di euh, woy kon euh, di ci euh, déglu li nga xamante ne moom mooy suñu gëstuk gaaw gi ñu àddu nag wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum environnement boobu rek ba léegi ak tamit environnementaliste yi nga xamante ne ñoom seen taxawaay nag wala seen gis-gis ci nu ñuy doxalee kon yëf ya ci réew mi moo di ne naam sax ñu ngi cee def ay jéego waaye am na itam lu bëri li nga xamante ne des na ci boobule fànn wala nag waa Ndakaaru di rek daal di daj ay jafe-jafe ci alam gi nu muy soppeekoo waaye itam ci biir réew mi kii di Moustapha Diop di environnementaliste daal nay rek sëkk waxtaan ak kii di Boolu Jaw ñu teewlu ko. atum ren ji ñu fas yéene waxtaanee ci bis bi nu jagleel alam gi ci nan lañu mënee defaraatee lii di écosystème bi waaye réewum Sénégal wàllam daf ci daal di des bu baax a baax loolu la Moustapha Diop xam-xamam natt ci wàllum alam di xamle. le gouvernement du Sénégal moom dafa nekk actuellement di def li nga xamante ni ñun mënuñu ko considérer à ce ni moo ngi def lu rëy ci suñu environnement parce que bu ñu ne environnement rek il faut ñu wax ni ci benn genre saytu lay doon saytu bu mag parce que boo xoolee ñu lu si lu ñu gis le gouvernement du Sénégal man dama ne nekk naan ñoo ngi construire ay autoroutes di ko jaaral si ay écosystèmes yi xam ne ay écosystèmes ay ce sont des réserves des aires protégées comme le cas Somone bu mooy euh, autoroute bi xam ne moom jaar Mbour foofu noonu dafa nekkoon benn réserve boo kon loolu ñun dañoo constaté que ni l' du Sénégal pour que mu conserver son environnement il faut que mu tenir compte su suñu dunduñ ci comment faire pour ñu am benn meilleur cadre de vie parce que waruñu mën a jël rek si wàllum urbanisme malgré que ni nit ñaa ngi yokku il faut que mu am benn fluidité par rapport ci transport beeg yëpp mais dafa nekk lu baax ci dëkk. ba tey bu nu sukkandikoo ci kàddu Moustapha Diop yi lii di changement climatique climatique bi mën na indi li nga xamante ni mooy autosuffisance alimentaire. tey jii bu ñu xoolee ci nos ressources naturelles comme surtout au niveau des ni am na nit ñoo xam ne dañoo dépendre ci forêt mun nañu wax les services écosystémiques yooyu noonu tey jii bu a joxe changement climatique bi ñëw atténué wu ci dina am benn impact bi nga xam ne da koy jur à ce que mun na indi ay famine mun na indi l'insécurité alimentaire. juin di bis boo xamante ni adduna wërngal képp dañuy màggal alam gi waaye fii si Sénégal ñi seen xam-xam nàcc ci wàllu le ñi ngi sàkku ngir gouvernement wu Sénégal bi gën leen a jàppale ngir ñu mën a sàmm li nga xamante ni mooy écosystème bi. Boolo Jaw nguur bu Sénégal daal nay jël dogal ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum plastique ci biir réew mi waraloon na sax ñu daal di yóbbu ab loi bi ñu daal di koy voté ci assemblée nationale waaye nag boobaak léegi mel na ni am na ñuy woy bi léegi di jëfandikoo kon yooyu lay euh, plastique rawat na nag lii di mbuus ya jaaykat yi sax tax ñu bëri ci ñoom daal nañuy xam le ni euh, njëg ya dafa rek sax euh, daal di yokku ba jéggi dayo ñu koy naqaru bu baax baax même su fekkente ne am na ñu nga xamante ne jamono ji euh, daal nañuy rek woon ginnaaw yooyu lay mbuus jëfandikoo lépp li nga xamante ne ci carton lañ koy defaree dañ ci ànd ak reportage u Fana Gaye Segnal na takkal jaayu mbuus wala kaasu kawsu ci jamono yee ñu weesu taxul benn yoon jaaykat yi bàyyi ndax ñoom lu ñu xamle mooy ngir loolu mën a am rek faaw rek nguur gi teg fi luy wuutu mbuus yi ngir ñoom it ñu mën a wëyal seen liggéey Abdou Aziz di jaaykatug fëgg jaay xam nga tey ji bu ñu fi jëlee ay mbuus ñin ñi nga xam ne dañ doon jaay di defal clients yi si mbuus yeeg affaire yooyu noonu ñu toog a toog gisatuñu mbuus yi ñu jëlee ko fi ba pare te indiwuñu leneen day métti si jaaykat lool waaw dañ doon jaay ay clients yoo xam ne da leen di jaay ba pare ñu laaj la mbuus doo am mbuus da leen di jëral ñu bàyyi fi bagage yi après yow nga ñàkk leen jaay perte sa client bu ñu sukkandikoo gis ne tere bi ñu tere njaayu mbuus yi ci biir réew mi defoo lu dul gën a yokk ceerte njëgu mbuus yi mbuus yi ñu tere nii moom nekkul loo xam ne lu ma gënal parce que am na bagage yoo xam ne moom mënul mënul a seeral rek mais terul ba léegi mbuus di xam le ne doxatul ba gis kuy jaay kaasu kawsu yu ñu daan naanee kafe Touba. kaas yi moom matière plastique yooyu moom gisatuma ko fenn man de doxatuma ba gis ko fenn léegi ñun ñi jaay kénkili baak yooyu kaas carton yi rek la ñuy utiliser parce que jaaykat yëpp ñoom dañ cee manko kaas yooyu la ñuy indi. ginnaaw bu nguur gi tere lii di matière plastique bi ci biir réew mi yi la jaaykat jàpp ne boobu la dakkal deful lu dul gàllankoor seen liggéey ndax lu ñu amee mbuus yi si guddi yi ñu toll cher na ba jéggi dayo xibaar yi Galaye Seck moo fare ci wàllum xarale yi mbokk yi ni ma leen ko doon waxee rek ci bopp li ñu daal di tabbi nag dalal suñu ganu xibaar euh, mu ngi wuyoo ci tuuru docteur Gora moom mooy directeur centre d'éducation et de formation environnementale euh, ci ministère environnement euh, ak tamit développement durable ñu fas yéene ànd ak moom ci waxtaan wi ci bëccëg gu ñu màggal ca tey jii kon ceer na warngal këpp jagleel ko wàllum alam gi di wàllum environnement naka la ko Sénégal di màggale fan nañ koy màggale yar ndi jéego la di def jamono ji ci wàllum environnement ñu euh, daal di koy euh, ñu ànd ak moom euh, d' abord docteur Gora Niam tey jii ci bëccëg gi nga xamante ñu ngi koy rek jagleel wàllum environnement tey loo ñu mën a wax ci ci bés bi. jërë ngeen jëf euh, donc la journée mondiale de l'environnement mooy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel lépp lu naan euh, environnement li nga xam ne mooy jaww ji ñu wër te nekk fi nga xam ne tamit ci la nuy dund mu constitué ni ko tubaab di wax suñ cadre de vie environnement boobu journée bi ñu ngi koy célébrer depuis 1974 donc euh, la journée mondiale de l'environnement est célébrée bis bu le 5 juin jotee muy bis boo xam ne nag day wane engagement gouvernement yi engagement entreprise yi engagement collectivité territoriale engagement bépp xeet boo xam ne daal nekk ci àdduna bi pour daal di wane pas-pasam ak wane taxawaayam ak wane engagement pour aar jaww ji nga xam ne moom ci la nekk. man mën naa jàpp sax ni ci àdduna bi bis bu ne sax mën na ni journée mondiale de l'environnement la parce que jaww ji ci la ñuy dund jaww ji moom moo ñuy jox li nga xam ne moom la ñuy lekk jaww ji moom moo ñuy jox air bi nga xam ni moom moo yor oxygène bi ñuy noyyi jaww ji moom moo ñuy jox suuf si nga xam ne ci la nuy dox donc bis bii nga xam ne moom la ñuy célébrer bis bu am importance la donc bis la boo xam ne war na fexewaat ba dëgg raatal pas-pas yi dëgg taxawaay am benn prise de conscience boo xam ni car bii nga xam ne ci lan toog nan fexe ba buñ ko dàmm ku nekk daal fa nga nekk nga taxaw ni yow mii yow yaa waroon mën a nekk kuy aar donc jaww ji kuy aar environnement bi kuy aar lépp lu di ndox kuy aar lépp lu di garab kuy aar lépp lu di rab boo xam ne yaa ngi nekk malef ci àdduna bi donc bis boo xam ne daal bis bu am njëriñ la njëriñ la. bis bu njëriñ la di journée mondiale bu ñu jagleel wàllum environnement euh, bu ñu waxee mondiale nag car na war nga këpp la ndax Sénégal euh, fii ci biir réew mi euh, fas yéene nañu màggal bës bu nu mel. bis bii nag moom Sénégal depuis daal ban ko institué ba léegi Sénégal da ciy am ay jéego yu ne mu ngi ko ci jugé donc environnement bi chaque euh, cinq juin bu ñëwee dinañ gis parlo gi nga xam ne moom la ci autorité yi di am ña ci jiite nag mooy président de la république son excellence Macky Sall ku nekk xam na moom taxawaay bii nga xam ne am nañ ko ci taxaw aar jaww ji sàmm environnement bi ba nga xam ne dara du ko yàq moom d'ailleurs boo gisee ci constitution Sénégal bi wax na ci lu bëree bëri cax ci nga xam ne mooy environnement ak cadre de vie bi mu daal xam ne moom moo ko joxe di orientation yi nga xam ni ah mu ngi feeñ ci PSE vert bi ak orientation yi feeñ ci lettre de politique de développement du secteur de l'environnement et du développement durable moom taxawaay bi mu ci am taxawaay bu leer a leer a la ak mbëgg environnement bi pour ñi nga xam ne ñoo ciy dund tey mais ci biir ñi nga xam ne ñooy ñëwi ëllëg loolu nag ko ci aw mooy le ministre Abdou Karim Sall taxawu na ci ci bis bi taxawaay boo xam ne bu solo la daal di mobiliser na tous les services du ministère de l' environnement tenir nañ réunion fii comme nañ ko daa defee ci at yi dali passé bu cinq juin jotee lépp luñ ci war a def ñoo ngi ko ciy def taxawaay bi mu ngi ci ba fële nga xam ne fa lañ ko war a célébrer ak ca ca région de Fatick ña nga xam ne ñoo fa nekk di gouverneurs yi yi régionaux yi ak départementaux yi xam environnement ak yeneen yi nga xam ne sax ci nguur gi lan bokk dëgg-dëgg am na taxawaay bu rëy rëy rëy boo xam ne def nañ ko ci ba tey journée de mondiale de l'environnement bi euh, Sénégal gi yëpp mobilisé nañ derrière son président Sénégal gi yëpp mobilisé nañ derrière son ministre de l'environnement et du développement durable pour que daal Sénégal jéego yam doon def ci environnement ñu gën ko dëggal daal di koy gën a jox gëdd tënku ba lépp lu di environnement daal ñu ko ci sàmm bu baax la jàppal ni daal Sénégal moom taxaw na ci taxawaay boo xam ni gouvernement am ay citoyen am ay collectivité territoriale am service technique déconcentré yi mouvement citoyen yi boo gisee association de femmes yi organisation communautaire à la base yi école yi ñëpp daal taxaw nañ pour màggal bis bi jëmmal bis bi ba nga xam ne donc lépp lu du environnement te ñun ñëpp moom lañ bokk nag c'est notre dénominateur commun c'est notre patrimoine ñu aar ko ba mën cee dund dund gu sell dund gu baax dund gu dal ba nga xam ne lépp lu fi yëngatu di nit di mala di garab gàncax lépp daal nga mën a dund ci jaww ji dundin woo xam ne daal dund wu dala dala dal dund wu sell. thème ji nag atum ren ji lan la ak tamit euh, li tax ñu tànn thème bu ni mel. thème bi nag au niveau mondial euh, mooy c'est la restauration des écosystèmes donc ñoom noonu lañ ko tuddee ci àdduna bi yëpp thème boobu nag buñ ko jëlee restauration des écosystèmes thème bu rëy rëy rëy thème boo xam ne bu am njariñ la écosystème yi gis nga day constituer euh, li nga xam ni mooy cadre demee ca forêt ya nga gis ci biir forêt am na ay garab waaye nag ci biir garab yooyu am na ay rab yoo xam ne ñu ngi ciy dëkk boo demee ci biir ndox ma ah am na ay jën a nga fa léegi dem na ba yàqu foo xam ne danga nga fa daan gis ay forêt nit gor na ko ba yàq forêt yooyu boo demee fa ay ndox am léegi changement climatique yi affecté na ko ba ndox moomu daal di gis léegi nag yooyu ñu amoon biodiversité boobu amoon te nga xam ne mu ngi yàqu lenn li ci nit la lenn li tamit nekk ci ay phénomènes yoo xam ne naturel la naturel bi moom moo koy yàq ak climatique yi nag pour loola yàqu ñu xool na lañ koy defarewaat nan lañ koy defare ba nga xam ni ah biodiversité ba amoon forêt ya amoon déeg ya amoon dex ya amoon mangrove ya amoon te lii nit yàq ko lii nga xam ne changement climatique yi yàq ko lii phénomène naturel yi yàq ko nan la ñuy mën a fexaate nag ba restauré waat loolu comme nan ko waxee daal di jëmbataat daal di defaraat ay garab daal di defaraat mangrove yi fexe ba tool ya nga xam ne dañoo amoon xorom ñu ba xorom soosu daal di fay jóg ba ndox ñëwaat fa mala yi ñëwaat fa loolu daal taxawu ci thème mondial boobu nga xam ne mooy la restauration des écosystèmes te sax fii ci Sénégal jënd na fi benn sous boo xam ni mu ngi ko tuddee le PSE vert pour la restauration de nos écosystèmes dégradés xam nga borom réew mi kilifa réew mi dañuy lépp lu jëm ci environnement daal ñoŋ ñoŋalaat ko dama bëgg ngeen xaatimal ma ko ci benn téere boo xam ne ñu ngi tudd PSE vert loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey bu bëree bëri te PSE boobu am na ci jëmbat garab am na ci sàmm gàncax gi am na ci xeex li nga xam ne mooy gor garab yi ñu ngi xeex ñi nga xam ni ñoom ñooy dugg ci géej gi di yàq jur ga fa ne ci biir géej gi am na ñoo xam ne ñu ngay dugg ci biir forêt di rey jur gën koy rëy li naan braconnage am na ñoo xam ne ñu ngay ñëw di gor garab ya ñu naan coupe illicite du bois loolu ñu nan lan ci mën a taxawee ah dans le cadre du PSE vert ba nga xam ne oto yii ñu ngi dem di daw di utiliser essence ak gasoil di yàq jaww ji loolu nan la ci Sénégal war a mën a taxawee ba wàññi loolu def ay TER def ay BRT def ay transport collectif ba wàññi oto yi wàññikoo li nuy yàq ci jaww ji dina wàññiku loolu lépp ci PSE vert bi la bokk nan la ñuy mën a fexe ba énergie renouvelable solaire bi bari fi président de la république def na fi ay jéego yu bari day nekk ci luy aar environnement bi léegi nag bu demee ba yàq ba pare nag ah parce que nag nit da ngay yàq nag mu ngay gor garab ya nit a ngay yàq ca wenn wàll wa léeg-léeg bu ñu bëggee def mbay mi dañuy gor ay forêt léeg-léeg nit ñi bu ñu bëggee dëkk pression démographique bi dinañ dem ca ñaay ba ko daggee lan war a mën a defe naan nag pour restaurer waat ko pour defaraat ko ba jëmbataat fi ay garab ba dax ya fa amoon ñëwaat ba déeg ya fa amoon ñëwaat ba mala ya fi nekkoon ñëwaat ba jur bi fi nekkoon ñëwaat loolu sax moom moo war a ñu ne le parc urbain forestier donc de Dakar bii nga xam ne ñu ngi koy defee fële ci aéroport international Léopold Sédar Senghor ba ci ay jamono day taxawaay yoo xam ne Sénégal mu ngi koy def par rapport au thème ñu ngi koy defee fële ci Toubacouta ak Foundiougne nga xam ne foofu mu ngi ko fa def rek di nga wax ne naan mangrove mangrove mooy garab yooyu nga xam ne ñu ngay sax ci biir ndox ma leen li ci wàll wi xam ne dax ya nekk ci peggu géej gi ñuy jouer extrêmement important dans la conservation de la biodiversité ak dans la protection de l'environnement Sénégal dogg na ci noonu nga xam ne ñu ngi ko doon yàq ñu xeex ko dogu na aussi ci à travers donc la reforestation durable ñu jëmbataat ay garab ba garab saxaat ci réew mi mu joué rôle ba mu doon joué sur le plan économique ak sur le plan environnemental. yow yaay njiital euh, centre bi bëgg nañu xam euh, tey ban taxawaay la am ci réew mi ak tamit yenn ci ay jéego yi nga xamante ne mu ngi koy def jëmale ko nag ci wàllum environnement. mooy centre d'éducation ak de formation environnementale dinañ fi jàngale di xam di yar maanaam di sensibiliser nit ñi di leen yee aussi ci wan doxali lan am par rapport ak li nga xam ne mooy suñu environnement coono bu nu daj rek suñu dëkk yi problème mu moo ngi ci mooy problème mu yar léeg-léeg nit ñi dañoo def loo xam ne xamuñu ku xamul nag da nga koy xamal loolu ñoo ngi ci am na foo xam ne nag nit kuy def yu fi maa tey ñu naan laxisme kooku moom buur moo koy yar centre bi ñu ngi ko créé woon mu tuddoon sax cellule dédication et de formation environnementale ci 2002 parce que 1990 ba 2000 Sénégal dafay amoon benn programme bu naan le projet formation information environnementale projet boobu nag waroon Sénégal gi yëpp projet bi ñu def ko ci fukki at ñu wër école yi jëmbat fa ay garab bi 2002 nag projet ba jeexee guvernement Sénégal ne pays fii bii lii mu def am na solo ba ci programme Sénégal bi ñuy jàngale ca élémentaire jàppale woon ci nguur Sénégal ba thème yu naan environnement ak développement durable ñu dugal ko ci xale yi di ko jàng nag ci vivre ensemble ak vivre dans son milieu ci nag ci lañ ko tuddee nag centre d'éducation et de formation environnementale man maa ngi fi ñëw en ñu ngi fiy def liggéey bu rëy rëy rëy mooy lan ñu ngi former personnel bi d'abord ñu leen ciy former bu baax baax ci environnement ak développement durable ñu ngi ci école yi am nañ fi programme boo xam ñu jëmbat fa ay garab ak euh, programme bu naan mercredi vert dañuy dem ci école yi waxtaan ak élèves yi waxtaan ak jàngalekat yi waxtaan ak parent d'élèves yi ci ban taxawaay lañu war a am ci environnement nan lañu war a mën a def pour gën a bëgg suñu environnement nan lañu war a mën a def pour gën a aar suñu environnement ba xale ba da koy màggaale am nañ aussi programme d'appui aux organisations citoyennes ñun dañuy dem ca ñooña daal di leen di former renforce seen i capacité ba pare jël matériel de nettoiement ñu may leen ko nag ñoom ñu nekk ca koñ di set setal di bale. am nañ sax benn programme boo xam ne ñu ngi am benn plateforme numérique ca internet ba leen ko bëgg def léegi sax mu ngi commencé di dox boo ku ko bëgg a xool na nga dugg ci www point alam bi aa l a m tiré du 6 bi point com muy alam bi point com. boo ci duggee lépp loo soxla ci environnement nan nga def ba aar ko citoyen bu soxla document sur environnement ak développement durable boo duggee ci site internet boobu ñu ngi ciy def lu bëree bëri ay borom xam yu bëri ci ministère bi ay jàngalekat ñu bëri dugg ci xool ci programme sénégalais ba def ci lu am solo loo xam ne ku ci dugg rek ndeysaan di nga ci ama ama am lépp loo soxla ci ci document loolu ñu nga ca ñu ngi fexe tamit ba xam nga wax naa la élémentaire ñu nga ca ci vivre ensemble ak vivre dans son milieu léegi nag du ñuy fexe nag ba yokk ko ci moyen ba yokk ko ci secondaire yokk ko ci université ba établissement yi nga xam ne fan la ñuy jàng métier ak xarale établissement de formation professionnelle et technique. maa ngi ñaan Sénégal gi yëpp di leen ni daal gis nga jaww ji ñu ñëpp moom lañ bokk nag mësumaa gis ko toog ba saag ñu te daal ma nooyi te ku nooyiwul moom xam nga fa nga jëm donc kon loolu ñuy nooyi nag nan ko aar. donc kooku ñuy nooyi dafa am solo te li nu koy jox nag mooy jaww ji nga xam ne ci lan nekk boo xëyee daal di lekk boo xëyee naan bu xëyee daal di dox sa soxla te li nga koy def lépp li la ko jox mooy àdduna bi ñu nekk kon kooku ki war a aar àdduna nit daf cee war a bokk nañ jàpp ni bis buñ jógee rek bis yëpp cinq juin la bu boobaa kon dinañ mën a dund ci àdduna bi dundin wu dal dundin wu sell dundin wu am njariñ wasalam cant ngërëm ñeel na ko docteur Gora Niang directeur centre d'éducation et de formation environnementale ci ministère environnement et du durable moo ne suñu gan kon mbokk mu ngokk yi lañu indiloon ni kii te itam ci suñu gëstuk gaaw gi mu doon nag ponk bi nga xamante ne dañ ko jagleel ci bëccëg gu ñu jagleel bu ñu màggal kon cat na wëngal këpp jagleel ko wàllum environnement di alam gi ci biir xibaar yi andoon nañu ak waa CFE di seen directeur Gora Niang waaye kii di soxna Fatou Ndoye ci Endagraf Sahel mi nga xamante ne dafa daal di taxawu tem ngir rek daal di dooleel eh, jigéen ñi eh, ci seen wàllum sécurité alimentaire waaye itam eh, ci wàllum alam gi ay reportage àndoon nañ ci tam ak yéen ci biir gëstu gi Mamadou Fall fare woon na ci kaddu gi Galaye Seck ci wàllum xarala lay mbokk yi di daje incha allah ba ci gaaw gu ñu dëgmal ci seen beneen gëstu asalaamaaleykum